di def tournée tournée la bu nga xamee ni dañu koy def saa su ne ci examen bu mu mën ci doon mu wane Sénégal fi mu teg kon lépp lu ñuy woy ñun certification ndax mooy moment bi nga xam ne dafay jeexal njàngub xale bi jox ko lijaasa bu nga xamee ni dafa war a am gëdd fépp fu mu ko mën taxawal nit nag li koy jox gëdd xam ko foog ñu jox ko gëdd kon moo tax ngeen gis organisation bi ngeen gis c'est vrai tey la ñëpp di ñëw ñu xool organisation bi administration bi mais bu ngeen xoolee bi ñuy waxtaan ak président jury yi ak chef de centre yi gis ngeen ni examen bi door na laata tey par exemple les présidents jury ont fait la prise en main et la prise de le, euh, pour leur centre depuis ils ont fait la documentation amoon nañ document yi depuis lors da lay wan ni la examen du bésu tey ba ci tànneefu fan lañ koy defee dañuy ñëw saytu xool ndax méngoo na ak fu xale bi mën a concentré wu fu xale bi mën a jànge fu mu amee espace de qualité mais ki koy corriger ak ki koy surveiller aussi ndax condition yi baax na amul dara luñ ciy neenal ba ci douche yi dañ koy xool ba ci gaanuwaaykat yi dañ koy xool ba ci ndox mi ndox ma ñuy naan ndox ma ñuy demee àll loolu yëpp lu ñuy saytu la moo tax tey su ngeen newee gis ni lépp dafa nekk euh, lu ñoŋ lu baax dafa fekk ni ñu bëri dañu ci liggéey ci ba muy jiitu fàttewu leen ni amoon na conseil interministériel bu fi jotoon a am Euh, ñu impliqué secteurs yu bare pour ñu bunge ñu ñun waa éducation et formation bunge waale enseignement supérieur ndax bac enseignement supérieur moo ko am bañ ca génnee ñu jot ay instructions des commandes institutionnelles xëy ni topp nañ ko dox ca ñëpp jàpp ci gouverneur préfet ñëpp euh, euh, force de défense et de sécurité wéy juru ndongo yi ñëpp ba ci yéen presse bi ku ne def na wàlla tey moo ñu may alhamdulilah albani ñu dox daagu fekk lépp ñoŋ mais dama du seet bi ñuy seet fii képp mooy supervision bi ci bii ñuy wax ak yéen centre bu nekk am na ay superviseur dédié danañ ko topp ci examen bi buy door ba keroog fa muy àgg ci cappaandaw ga kon ñu ngi superviser de façon globale mais aussi de façon permanente loolu lu ci am la itam di xamale ni surveillant yi gis ngeen ko salle bu ne am nañ fa lu mu tuuti tuuti ñetti surveillant loolu pour que condition de validité yi ñu mën ko remplir conformément au prescrit Euh, examinateur yi gis ngeen leen ñoom ñëpp surveillant comme kii ku ci nekk ponctuel na les présidents de jury wax nañ leen ko ku ci ne ñëw na ca waxtu wañ ko doon xaar euh, ci mën a wax daal bu lépp daje mooy mbir mi ñu ngi ciy sant yàlla ñoŋ na alhamdulilah rabil alamin yàlla na continuer noonu te gën a rafet ba nga xamee ni xale yi doonoon wéyjur bi doonoon yaakaar wéyjur yi wéyjur yi tàggat leen dénk ñu leen ñun ñu ngi xam ñu ñoo leen doon jàngal ba bésu tey ñu ñëw taxaw di leen natt ñu ñaan yàlla natt bi ñu am ci ndam ak mbégte ci jur yi comme ci ñun ñi nga xam ñoo leen yore woon di leen jàngal depuis ba ñu amee juróom-benn at ñenn ñi def ba ñu amee ñetti at di leen ñaanal aussi yal nañ ci jot buñ ci jotee yal leen jig te jig réew mi parce que nag euh, ñoom ñooy alal réew mi ëllëg moo waral bés bi yëpp ak li nga xam moom la Sénégal bi def. nombre de candidats yi. nombre de wax naa la ko nee naa la am naa vingt neuf mille candidats ci vingt neuf mille yooyu nag téeméer boo jël. téeméer boo jël juróom benn fukk yi téeméer boo ci jël juróom benn fukk yi ay jigéen lañu waaw ñoom nag euh, ñu ngi nekk ñu tas leen ci juróom ñeent fukk ak ñaari jury jury yooyu ñu ngi ko séddale ci fukki euh, ci juróom fukk ak juróom mi ay euh, ay centre yooyu yëpp nag wër région bi ñii ñu nga booru Mbour ñii ñu nga Tivaouane ñii ñu nga Xombol ñii ñu nga côté Paycook fu nekk daal ci kii bi parce que xale bu nekk dafa war a dem def fi examen bi ca fa mu ko gën a jege ca ñoom gën ñoŋ mais xam leen daal suñ koy organiser lépp ca na mu gën a ñoŋe gën a noppale te gën a baax ci ndongoli ak waajuram noonu lañ koy planifier jërë ngeen jëf pouvoir accompagner dans cette tournée comme vous avez l'habitude de euh, dans le cadre de cette tournée guide de supervision du démarrage de l'administration des épreuves du baccalauréat. Euh, vous avez vu avec nous, merci, partout où nous avons été, nous pouvons en tout cas nous satisfaire de ce que les clignotants sont ouverts partout. Alhamdulillah, et Machallah, que cela continue. Si cela est, parce qu'un ensemble de dispositions nécessaires ont pu être prises en amont. Un conseil interministériel exclusivement réservé aux examens scolaires et aux certificatifs avait été organisé. À l'issue du conseil, des directives avaient été données pour encadrer l'organisation de cet examen. Et c'est le lieu de remercier l'ensemble des secteurs qui avaient été impliqués lors de cette euh, commande institutionnelle pour nous permettre de réaliser cela. La gendarmerie, la police, bref, les forces de défense et de sécurité, mais particulièrement l'administration territoriale, qui de de maître et avec bienveillance nous a écoutés et accompagnés pour faire la coordination de la mise en œuvre de ces directives et de ces instructions au niveau local. Au point qu'aujourd'hui, tout a été bien millimétré, bien chronométré, et on a marché à des pas cadencés, mais avec succès. c'est le lieu de remercier tout le monde. Pour ce qui est de nos statistiques, nous avons pratiquement 29 000 candidats. L'académie de Thiès est la plus grande académie du Sénégal. Euh, parmi ces 29 000, les 60% sont des jeunes filles. Ces candidats à travers 92 jurys. Et ces 92 jurys au niveau de 75 centre. Et vous avez vu, euh, tout est au rendez-vous. Euh, vous avez bien vu que nous avons mobilisé beaucoup de surveillants partout où nous avons été pour remplir les conditions de validité et de sécurité. Parce que l'examen, c'est du crédible, c'est du certificatif. La crédibilité des diplômes et du pays en dépend au point que il ne faut rien négliger. Vous avez vu qu'on a trois surveillants par La crédibilité du pays en, en, en dépend, les chances là aussi. Et nous avons aussi des examinateurs, euh, correcteurs comme surveillants, qui sont déjà là. Les présidents de jury tous sont là et ont fait la prise en main. Le jury depuis hier, en relation avec les chefs de centre, ils nous ont, vérifié, euh, ils nous ont confirmé que l'ensemble du protocole édicté pour ce qui doit l'être par rapport à l'organisation de l'examen a été respecté et de façon conforme. Les épreuves que nous avons reçues sont reçues en conformité et en nombre suffisant. Euh, au niveau des enveloppes, il y avait exactement ce qui avait été écrit au-dessus, c'est-à-dire un nombre conforme des preuves. Le protocole d'ouverture a été respecté partout où nous avons été. Et quand on a ouvert les enveloppes aussi, on a loué une bonne qualité de la reprographie, permettant donc à nos enfants de travailler dans de bonnes conditions. Mais l'espace aussi, est un espace qu'il faudra convoquer. C'est l'espace de travail, les conditions de travail, autant pour les chefs de centre, pour les présidents de jury, comme pour les élèves. C'est parce que la sélection en amont a été bonne, parce que c'est le moment d'administration des épreuves. Mais c'est plus la préparation lointaine qui fait le bac que le jour d'aujourd'hui que nous sommes en train de superviser. Les centres sont sélectionnés, supervisés en amont, contrôlés. Et même au moment où nous vous parlons, il y a des superviseurs qui sont en itinérance, qui polarisent chacun d'entre eux un nombre exact de jurys, qu'ils coordonnent et supervisent en permanence jusqu'à la fin de l'examen. C'est dire que la tournée de supervision ici que nous sommes en train de faire n'est que symbolique, mais que la supervision, est globale et permanente. C'est cela aussi l'organisation de tous les examens certificatifs du pays, parce que comme je vous le dis, c'est du sérieux et le Sénégal y attache une Euh, véritablement, la sécurité aussi, c'est le lieu, vous l'avez vu. Les conditions de travail sont bonnes, vous avez vu les conditions de concentration, vous n'avez pas de bruit. Et Dieu merci, nous croisons les doigts. Il reste maintenant à prier pour nos enfants, pour leur souhaiter plein succès et une très bonne réussite, afin que les espoirs en eux fondés par leurs parents ne soient jamais dessus, mais surtout les espoirs fondés par la société sénégalaise et par la nation sénégalaise. Mais surtout pour nous, le bonheur de les avoir gardés depuis l'âge de 6 ans, que véritablement nous ayons d'excellents résultats qui honorent tout le monde et qui fassent perpétuer nos espoirs pour aller encore plus loin. Dire à nos candidats que l'or à portée de bras, qu'il s'agira juste de faire un peu plus d'efforts pour avoir cet or-là pour le grand bonheur de tout le pays que le